man xawma keneen de waaye man ni ma amee jot pour jànga nit ku bon nit ku soxor iñaan mun a sosal nit man ni ma ko jànge te ma xam ko ah? te li ma la ci wax ne nit ku bon muytul ma ko dina la def li su ma la ko waxee rekk binda ko téere binda ko téere waaw ñi ma ko wax yëpp gis nañ ko ñi ma ko wax yépp gis nañ ko man dama jël suma time ah, di jànga nit ku bon xam nga ntonkonkaare soo pulo moom moom narcissis bi la jànga man nit ku bon soxor ma lu laa jàng ak ku iñaan man dama leen xam xam naka lañ dee doxalee xam naka lañ dee mel naka lañ mel dañoo bañ nit ku bon soxor àndandoor bu bon bu fekkee ne doo dee wax ak moom dafa dem koo xam ne yow danga jubóoye kooku nu dafa dem muy duga si biir muy duga si di dugalante kooku pour yow nga mer nga bàyyi kooku noonu yow soo amul fulla amuloo fayda boo demee nga bàyyi kooku noonu xamal rek li nga wax ak li nga wax ak ki nga xam ne sax mu ngi la wax ak moom mu ngi def ak moom ndax kooku dina ndax waxkat la ndax waxkat waaye xamal rek looy wax ak moom waaye at the end of the day num yàgga yàgga yàgga yàgga because ñëwut in a good intention pour amala kooku noonu xol bu rafet nim yàgga yàgga yàgga yàgga di nga dégg ne defante naa kooku noonu di nga dégg ne jotee naa kooku noonu because lan la xol bi mu amee moo moo nekkut xol bu baax intention bi mu am ba ñëw si kooku noonu di di di di fréquenter kooku noonu yow mi nga xam ne yaa ngi juboo ak kooku noonu mu ngi gis yow yaa ngi nekkaa nit nii dafaa dem si su kooku noonu understand nga pour yow nga mer nga bàyyi ñooñu noonu. boo demee ba mer bàyyi ñooñu noonu du yàgg rek nga gis mu foolaat ñooñu noonu waaye boo gisee ne yow ba tey yow bàyyiloo ñooñu noonu du yàgg rek dafa try te be pare kaay seede daf laa utal tuuti problème tuuti problème nga du yow keroog nga koy to wàllum tenniñ tenniñ ten mu commencé na di la indi loo xam ne mu la ko dencal mu ngi xaar benn bés rek li ngeen di foolaawte rek mu ñëw indi la loolu yëpp nit ku bon nit ku soxor noonu lañ mel moytu leen buñ nekkee seen life jël leen ngeen dem si lopitaan bi ñu péngu bëñ boobu noonu ñu buddi ko ngeen sànni leen ngeen def leen trace that's what they are trace mbalit lañ amuñ benn njëriñ si société bi amuñ benn pépi njëriñ si société they are evil doma lañ